Chers internautes, informez-vous sur Bawal TV officiel. Nous vous donnerons des informations sûres et fiables grâce à nos correspondants de tous les côtés. Tel la altine fukki waxtu ak ñaar ci bëccëg ma jot ci hôpital bu Fawzeyni bu Touba jot ci unité 15 ak unité 8 ñi ci diwaanu parcel ce mbokk assalamu alaykum si gën a fes demu kii di président Macky Sall foofu ca réew mu États-Unis yéen si Sénégal daal jàpp ne la ji dëgg la def maanaam ci dem ki nga xam ne mën na ko foofu ca réew mu États-Unis ndax yéen si Sénégal yi toogaa yu ñaxtu laaj ñu amal si mbedd États-Unis jébaane ko ba àddina bépp boo xam ne daal mi di Macky Sall mbir mu dictateur dëgg dëgg lay jaay fii ci réew moom Sénégal di leen fàttali moom mi di nag di président Macky Sall nag euh, demoon na foofu ca États-Unis ci euh, édition euh, assemblée générale muy des Nations Unies mi ñu amal foofu ca réew États-Unis nag haute euh, culture kon moom Macky Sall nag euh, fa la demoon waaye Sénégal yi nag daal ay ñaxtu maanaam ay doxa toogaanu ay toogaanu ñaxtu daal amal foofu ca réew mi daal suñu ngir yéebaane kii di président Macky Sall waaye tamit kii di Koura euh, Macky wala Daba wala Koura Ndiaye ngir nga xam ci Koura Macky moom daal tamit yéen Sénégal daal dañ ko interpellé daal koy yuuxoo ba jot ko ko fa euh, toroxal sax moom it di euh, dab Macky ngir nag euh, ngir ne rek demoon gi nga xam ne ànd na ko kii di président Macky Sall demoon foofu ca réputation ni waaye nag kii di Marème Faye Sall prime de Euh, daa moom tamit daal yéen si Sénégal moom tamit xol bu naq daal la fa euh, ngir yéen si Sénégal daal ay yuuxoo lañ ko doon def moom mi di euh, Marième Faye Sall yéen daam bu Sénégal kon nag di la fàttali daal Macky Sall daal na si foofu ca réew États-Unis démb ci dimanche ci yemoo ko septembre ci atum mu doon la des Nations Unies na foofu mm. ko daal ko Macky Sall dal eh, ni nga doxale nga yow dal ak manam andu ci tay andu ci alway dal dal no japp dal Macky Sall mu lagg deug la def ci dem ko xam dama nako fofu ci rew mom états ko bokk li ay tankul ci ay xibaar ci tak ngërëm ñal na di wax ngeen di way abonné way bu fatte di activer ko notification xam na ko ci TV nga mën ko jot ci ngeen def Chers internautes, informez-vous sur Bawal TV officiel. Nous vous donnerons des informations sûres et fiables grâce à nos correspondants de tous les côtés.